rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi gannaaw bi nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd ba sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama ñu ngi santaat bu baax cheikh ahmadou bamba sunu yaakaaru tey ak ëllëg di ñaanal cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak njabatuk borom tubaa gu maam cheikh ibrahima fall ak kilifa diine yëpp ñu ngi ñëwaat tey ci tomb yi nga xam ne moom la ñuy amal muy tombi borom Tuubaa tombi maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy amale fii ci daara yi borom Touba ji nga xam ni moom liggéeyal lislaam rawat naag borom Touba rek ko tax a jug te sañ Abdou Khader Mbacke mi nekk ca bopp ba kon ñi ngi ziare mbokku taalibe yëpp di xamal ni DBT Pro lépp lu jëm ci wàllum njàngale mii ñu def ak yu ni mel képp koo xam ne dem nga YouTube nga tàppe DBT Pro danga fa mën a fekk tomb yi ak yeneen jàngale yu mel na moom. kon nag fii ci daara yi borom Touba ji la ñu fas yéene incha allahu amalaate tomb yi nga xam ni moom la borom Touba di jàngalee.